حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني condition tariqa tijaniya nag condition tariqa tijaniya nag condition la yoo xam ni condition la yoo xam ni bu ko nit ki rempliree bu ko nit ki rempliree ci boppam lay dellu ci boppam lay dellu bu ko remplirul aussi bu ko remplirul tamit la nga xam ni moo ci mbugal ma la nga xam ni moo cay mbugal ma ci boppam lay dellu ci boppam lay dellu moo tax di ngay dégg jamono ju nekk rek moo tax da ngay dégg jamono ju nekk rek ñu ni tarixa tijaniya ñu ni tarixa tijaniya ci la lumière bi nekk ci la lumière bi nekk di nga xam ni mooy sauver ruux yi di nga xam ni mooy sauver ruux yi waaye waxuñu rek waaye waxuñu rek nga adhéré nii nga adhéré nii te fekk defuloo dara te fekk na defuloo dara dañu ni dañu ni nga fexe nga fexe ba li ñu la ci jox ba li ñu la ci jox nga xam ko nga xam ko boo ko xamee ba noppi nag boo ko xamee ba noppi nga tey bari na ñoo xam ne ñi ngi ci tariqa tijaniya tey bari na ñoo xam ne ñi ngi ci tariqa tijaniya waaye ñi ngi am ay gàllankoor wante ñi ngi am ay gàllankoor ci seen côté spirituel ci ci seen côté spirituel te li koy faral di indi te li koy faral di indi mooy ñàkk jox wérdi bi oh. mooy ñàkk jox wérdi bi xorom xorma xamuloo mën nga jël wérdi xamuloo mën nga jël wérdi te joxoo wérdi bi xorma te joxoo wérdi bi xorma bari nag dañu foog ni boo jëlee wérdi rek ñu bari nag dañu foog ni boo jëlee wérdi rek jox nga xorma wérdi jox nga xorma wérdi bi fekk xorma bi fekk na xorma bi mi ngi feeñee ci pratique bi mi ngi feeñee ci pratique bi muy ci wasifa muy ci wasifa muy ci lazim muy ci lazim muy ci xadaratul muy ci xadaratul jumaa Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani amul kenn koo xam ni. amul kenn koo xam ni. dina la neexal. dina la neexal wala mu forcé la ci wér. wala mu forcé la ci wér bi. bañ na ko ba wér dem sax. bañ na ko ba wér dem sax. laaju ci propagande. laaju ci propagande. kon képp ku ci dugg. comme képp ku ci dugg. condition yi nga xam ni. condition yi nga xam ni. ay condition la yu taxaw. ay condition la yu taxaw. da ko war a respecté. da nga ko war a respecté. ginnaaw sa julli. ginnaaw sa julli. ginnaaw woor. ginnaaw woor ginnaaw génne azaka. ginnaaw génne azaka ginnaaw aji ginnaaw aji màkk. looy jëfati rek. looy jëfati rek. lu dul lii. lu dul lii weesu tarixa bi moo ëpp doole. weesu tarixa bi moo ëpp doole. kon bàyyi ci xel farata la. kon bàyyi ci xel farata la. waaye am na ñoo xam ni. sangi bi ne am na ñoo xam ni wuñ ko noonu. xale wuñ ko noonu. ndax nit dina nekk ci wérdi bi. ndax nit dana nekk ci wérdi bi. fekk am na lu ko ci yàqal. fekk na am na lu ko ci yàqal. ko te yëgu ko. boo delloo ci côté spirituel. boo delloo ci côté spirituel. booy zikr. booy zikr. nekk ci malaanu wasifa. nekk ci malaanu wasifa. la nga war a njëkk jiital. la nga war a njëkk jiital. mooy volonté. mooy volonté. Cheikh Tijani Cherif. Cheikh Tijani Cherif. woowul kenn ci malaanam. woowul kenn ci mbalaanam. koo xam ni koo xam ñàkk pexe moo ko fa indi. ñàkk pexe moo ko fa indi. moo tax boo naree ba moo tax boo naree wasifa mhm. te fekk ñàkk pexe dong nga tax ngay wasifa te fekk na ñàkk pexe dong moo tax ngay wasifa mieux vaut que nga toog sa kër ndax doo fa jëlee dara ndax doo fa jëlee dara jaamu yàlla xam nga lu ci jiitu jaamu yàlla xam nga lu ci jiitu sawar ba noppi sawar ba noppi ku tayel ci jaamu yàlla ku tayel ci jaamu yàlla bu ko yëgee bu ko yëgee bu ko yëgul yëpp ak bu ko yëgul yëpp xolam mi ngi commencé lëndëm xolam mi ngi commencé lëndëm سيدي محمد الشيخ يا رام بورو مدينة شيخ يا رام سيدي محمد الشيخ يا رام بورو مدينة شيخ هو قصن بي السلام إن أم بفي سوزيك إلى غدا سيدك كروا أسنگ بي est le seul remède pour une âme. Purifier son zikr et la rédemption du